waaw tey euh, dañoo ñëwoon fi ñu concessionnaire yi nga xam ne ñoo ngi ci Nettoyant ci mboolem Sénégal yëpp ñu amoon fii waxtaan tey parce que semaine bu lay passé dañoo réunion fii doon xool di gëstuwaat waxu président daal mais monsieur Macky Sall wax bi mu waxan ci conseil des parce que après sur arrêt de travail bi nga xam defar nañ ko ba solution commencé am dafa dem conseil bi yëkkati fi mbirum mbalit. muy loo xam ne nag bëgg nañ ca parce que en tant que président bu ñu defee benn acte moom tam mu dégg suñu wax ba impliqué wu ci loolu moo tax ñun tam ñu bëggan ci loolu mu waxan ni joxe ndigal conseil des ministres ni nan def audit financier ak ak audit technique UGG buñ ca waree lu ñu amal importance suñ ñun mooy lim ni nan def concertation large ci acteurs yi nga xam yëpp ñu ngi yëngu ci nettoiement ba pare mu boole si nag sans délai bi mu ko defee ñun en tant que conseiller defe naa ni ku ñuy wax acteur mbalit ñun conseil ñoo ci jiitu parce que boo xoolee liggéey bi ñun ñoo koy def budget bi tamit kenn ëppale wuñu ci kon nag defaat ñun ñooy acteur principal. loolu bi mu amee ñu gëstu woon ci ba jàppan day def benn séminaire réunion nañ ci ñaari yoon tey nag ñuy réunion nag pour jàpp bis ak nin koy doxalee moo tax ñuy ñu ni tey ah faaw ñu wax nag Sénégal déggnu euh, gouvernement déggnu xam ne ñun defu na lu exécuté li nga xam moom le président bëgg ak moom la wax te aussi nag loolu dara taxul ñu koy def nag lu ngir liggéey bi parce que ci nu ñuy liggéey bu nu amee lu naqari dañ koy wax bu nu amee loo xam ne yaakaar naa ne dina solution dina trouver solution tamit ci mbali mi tamit dañ koy wax invité Sénégal yëpp nag gën a euh, gën a dëgër waxu président pour loolu nekk moo tax ñu jël décision taxawal benn séminaire parce que yéen a taxawal le 24 mars bi lañ ko fas yéenee def taxawal nañu des commissions yoo xam commission technique de préparatoire yoo xam ñun ñooy ñooy préparé

le 10 mais le 10 moom passé na ñu door a commencé exécuter mais nag am na ñu di exécuter mais malheureusement nag am na ay couac aussi parce que li tax danoo aman ay factures yoo xam ne moom leen déposé woon mais direction bi fi nekk dafa xaw a nag contesté factures yi ba léegi muy woote naan dañuy defat pointage mais yàlla dogal na nag pointage bi ñoom reconnaître na li ñu jëfagul ñoom ñoo def erreur fii nii nag am nañu jot mais am nañu moitié bi jotagunu ba fii ñu toog deuxième tranche bi am nañu jotagul ba fii ñu toog kon nag loolu tamit ñuy ngi gën a lancé war appel nañ fay nit ñi seen xaalis comme na ko nguur gi waxee woon na ko premier ministre accepté woon ministre des finances accepté ko le ministre du wax ko vraiment lool nañ ko respecté def ko noonu lu ko waxee ba nga xam bu ëllëgee tamit mois euh, at man euh, mois bi ñu waxante bu amee bu nu àggee du ameel dara loolu bu ñu ci àggee ñu fexe ba du ñu ameel dara. waaw waaw xam nga xam nga liggéeykat moom ak boo mën di doon. boo liggéeyee ba sa liggéey mat dañ laa war a fay muy kii liggéey ci mbali ak keneen ak keneen a ci yem.